waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaje bi man maa ko woote ndaxte lu tax ma woote ko damaa gis sama askan sonn ñu jaay leen doole xoxotal leen tiital leen toj seeni kër. ñii toj nañ seen i kër ñii ñu ngi yaakaar ne ëllëg ci biir kenn nelawatul ñu ngi yaakaar ne suba dinañ encore def li ñuy def mbéy moo tax comme sama njaboot la nekk moo feeyoon moo ñëw ñu woo ñëw fi def ay délégation ne ma nag lii da nga koy génn ci biti ñu wax ak euh, askan wi kon nag man sama message président la république laa ko yónnee. la koy adressé mu recevoir ñu nu mu gën a gaawee comme ça ñu wax ko lan moo nekk si si gox gii ndaxte titre foncier yi nga xam ne joxe nañ ko euh, depuis 2006 mu mu révisé waat ko suñ ko mënee gelé ñu gelé ko ndaxte waxuñu ne ay foo waaye nañ ko joxe ak nañu ko amee loolu laa xamul lan fan ban base lañ ko amee ndaxte mun loo jël lu war a mot cent hectares deux cent hectares nga jox ko benn individu individus au détriment des milliers de personne te milliers de personnes yi njaboot lañu ay miskin lañu amuñu ils sont pas amuñu ay moyen dañoo sonn dañoo laqati dañoo ñi jaay dañoo jaayantu ba am dara am jënd seen terrain ñëw laqatu fii boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi daw ci loolu moo tax ma lancé appel président de la république mu recevoir ñu annuler toutes les euh, nu mu traité bail yi nga xam ne joxe nañ ko fi et euh, pôle urbain yi nga xam ne it joxe nañ ko fii. loolu tamit ñu daal di koy réviser waat xoolaat exactement loolu nan lañ ko joxe ndaxte sàmmkat yi amatuñu fu ñu sànn borom tool yi amatuñu fu ñu tool fu ñu dëkkee njaboot yi amatuñu kër fu ñu nekk extension yi nga xam ne ja euh, euh, waxtaanoon nañ si ba accord si dëkk yi ëmb pertin bi pertin bu nekk am nañu trente hectares trente hectares la ñi quarante hectare ñi soixante hectare njabootu njaboot ji màgg nañu te njaboot gi màgg amatuñu fu ñu sukkandiku ñii am nañu soxna ñii am na ay doom ba tey jii ñu ngi seen ñu ngi buruxul seen këri waajur te ku ku am soxna bëgg nga indépendance te loolu suuf saa ngi fii kon nag lañ koy joxe ñeneen ñu jox ko sunu njaboot amuñu amuñu ay amuñu ay cimetière amuñu ay hôpital amuñu ay espace espace foofu yi xam ne xale yi mën nañ fa fo donc loolu yëpp ay manquement la yoo xam ne mënuñoo jël lu war a toll ak deux mille cinq cent hectares jël ko may ko ay samba boo yi xam ne xamuñu fu ñu jógee au détriment des populations de Bambilor dans la commune de Bambilor moo tax de laa def. cri de cœur c'est très rare c'est la première fois ma ma wax ci lu mel nii mais soo gisee ma wax ci lu mel nii en public nii nii c'est la première fois kon nag sonn nañu lott nañu jaaxle nañu jaay doole bi doy na sëkk. doy na sëkk président indi ñu saafara wallu ci li parce que moom la ñu xam moom la ñu waxal lii nag su bëggee am lu ci lu mu ci xam lu leer premier ministre xam na si dara. Amadou Mamour Diallo xam na si dara. donc service impôt yi fi nekkoon en 2006 ñooñu xam nañu li fi nekk na leen woo def un def enquête ñu xoolaat titre foncier yi nan lañ ko amee ñu def enquête si titre foncier bi si gox gii nekk fii yëpp loolu moo nekk sama kàddu